en gandi miɗen calmina sokhna mam mbakke miɗen ɗum calmina men ɗum juuro men ɗum jafno miɗen ɗum mbi sokhna mam saye yo dal kala ko cohlunoɗa dañi ɗum saabu ɗum duɗal ngal allah huɓɓi sa wawi tan beddoɗa toon duɗal ngal yanñi sago mam sokhna mam saye yaat so jagga ko yaat ñeeño boo xam meew rek lay naan meew nag naan lum ñaan dey am man nag defe naa ne te sëriñ bu ne sukk naa ci tànkam di ma ñaanal kon man soxna maam say Mbàkke li nga bëgg eggal yàlla na nga ko eggal ak jàmm sa barke maam barke sëñ Abdoulaye borom Belal barke sëñ Cheikh Sey. sant bu baax waat waa Belal baax di sant sëñ Cheikh Mbàkke euh, son yi bu baax di ko sant di ko ñaanal yàlla may ko dugg wér ndax lépp lu am rek moom la di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké xalif général bi mu yàgg ci loolu te wér di sant waa Touba Belal ndax am naa ci yéen yaakaar nag ni ñu ko dem jàpp naa ne 17h rek na fekk njoxe distance yi fii moom nu seen xel dal di wax nag yéen waa Touba Belel ñu ne am ci yéen yaakaar jur juddoo fi yaroo fi lépp lu lu baax rek ñu yéen ko def di ko fi jël sunu may bopp rek di leen loo xam ni ah, ñoo koy jël ko fi def di jàppale lépp lu ñu sa demande jox nañ leen ko kon nag ñu am ci yéen yaakaar ngeen takku jàppale président Macky Sall 2019 mu jël ndam li premier tour fii moom mën na seen xel dal ah, lépp bu soobee sëñ Touba di wax tamit ne daa am lu ma dégg ñox ko fan yee ñu ne président Macky Sall dafa joxe Touba euh, malti xaalis ñu ko seet président Macky Sall joxul malti xaalis Touba amul seen loolu xaalis Touba dafa bëgg sëñ Mountakha def Touba loo xam ne ni Afrique gépp la ko def jagle ko yoonu murit ndax toll ilaa Touba rek doy na secteur stam mu def ko Touba bëgg sëñ Mountakha moo tax ñu murit yëpp ak waa Touba gépp ñu baat bu wuti ko te xam dañ ko woteel 2019 bu jël ndam ne Touba loolu mu bëgg na suñ Muntaxa defal nañu teranga jox mënutuñ koo fay teranga li ko fay teranga ji mooy 2019 ñu jox na am ndam moom du séddale mooy xam ne bëgg na kon na xam ne tëddee nelaw ndax ku ku ku liggéey rek nga am jaajëf te liggéey na kon jaajëf ñi mooy 2019 rek jox ko ndam li incha allah li mu def ci Touba buñ ko lim te ñu fanaan assainissement bi def na ko fi DER baa ngi fi li gën a rëy nag ci Afrique mu Ila Touba bi nga xam ne ay milliards la ñu tuddee ko Serigne Touba doog Ila Touba kenn ko xam ne Serigne Touba la ko defal bëgg Serigne Mountakha nag kon nag ñu ma li ko mën a jukkal mooy delloo ko réew mi te mën na ko def incha allah Touba gépp mat bi kon si ko 2019 Touba 5 17 heures dañ jox président Macky Sall ndam premier tour liggéey na lu ko falaat Touba jëf na ko liggéey na ab yaram wan ay ay tegg na wane na ko mhm, ci Touba pour sam ñee xam borom gi muy naaj di wax jaamu mhm. waaw man nag euh, damaa jël samay engagement ci parti bi fas yéene deux mille le vingt quatre Touba gépp engagé wu ñu fas yéene jàppale président Macky Sall bel nag mu ut waxaal moom sax bu tëddee nelaw lépp suñu fi ma dikk ci moom xalaat ndax nekkoon na ci réew mi gis ñu def Touba Macky nag moom ñun waa Touba kenn mënuñoo jënd kenn suñu njëkk ñun waa Touba kenn mënuñoo jënd kenn suñu njëkk li ñuy jënd mooy respect sëñ Touba jox sëñ Touba gëdd loolu mooy njëg li te Macky Sall def na ko